وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وزكي لبي وافتح عن ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo ba gën a sal di nuyu lislaam di leen ndokkeel ci weeru tedd yu ci nekk di weeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am ak kontaan bu yaatu dellusiwaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ni sumboon nañ ko ak yéen muy lu jëm ci ay leeral jëm ci xasida gu tedd gu màgg googu nga xam ni mooy muqaddamatul xidma fi salaati ala nabi rahma aw miftaahu saadati fi salaati ala xayri saada bu ko defee mbokk yi day daal ñëw ci maanaam salaatu yi nga xamante ni Serigne Gueye mbokk mu baax mi dugal na ko muy wax ni allahuma yow sunu borom salli na nga dolli xéewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne turam mooy muhammad arradiu kay aji namp ga ka nga xam ne mooy ki nampe ci jigéen ju sell ju tedd ñu koy tuddee alimatu saadiya nga xam ni bokkoon na ci aaday arab bu seen doom musaane gën a àdduna dañ ko daan yóbbu ca àll ca baadiya ba ngir nampale ko fa julluwaay ma nag du wan lan lu dul rek dañuy wax ni foofa la foofa lay ak njàmbaaram di gën a dëgëre fa lay ëpp kàttan te it fa lay gën a yewwoo am xelam fa lay gën a ubbikoo loolu moo nekkoon seen objectif yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag bokkoon ci ñi nga xam ne bi ñu gën a àdduna ah dañ leen a yóbbu woon ca dëkk yooyee mooy ca village yi ya ngir nàmpali leen ka féete woon nàmpal ga di Seydina Xalimatu Saadiya mu ne wasare noo dol ak mucc alihi ci moom wa ala alihi ak ñoñom ya wa saabi ak saxabaam nekkal yow sunu borom subhaanahu wa di aji dégg bi jaahi ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li jamii tadarru yi ñeel sama mbooleem toroxlu toroxlu gi jëm ci suñu borom xam ni ab jaam bu doy di nga jaam bu néew kàttan nga jaam bu néew pexe nga ngay da sax ji ñaan suñu borom di toroxlu jëm jëm si jëm si ci moom loolu lañ tuddee a tadarru mu ne ko suñu borom nekkal di doon koo xam ni da ngay nangu mboolem xeeti ñaan yi may ñaan ak sama xeeti mboolem toroxlu yi nga xam maa ngi ko toroxlu jëme ko ci yow nag moo ko nangul ci daraja Yonent bi alayhi salaatu wa salaam allahuma yow sunu borom salli na nga doole xewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad arradi yi kay ku ñu gërëm ko muhammad mi nga xam ni ñëpp gërëm nañ ko ndax yeneen ndax maamam muy muy abdul mutalib daa waxoon ni sammaytu muhammadan li yakuna mahmudan inda annaas nee na dama ko tudda Muhammad ngir mu doon koo xam ne ku ñu sant la doon ci mboolem nit ñëpp te loolu daloon na yonent bi alayhi salaam mu mel ni waa Màkka li ñu ko daan weddi weddi weddi ak li ñàkk gëm teewul moom la ñu tuddee woon as-Saadiqul Amin ku dëggu ki ku wóor ki moom lañ ko moom moom lañ moom lañ ko tuddee woon avant l'islam di ñëw wasalam na dool ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam wa ak saxabaam ya was fi na saafara bi jaahi ci daraje yonent bi alayhi salaam jamiha amradi sama mboolemi tawat mboolem lu xeetu ay tawat ci man moo xam tawati yaram la wala tawati ruu la wala tawat tawati xol la suñu borom na nga saafara loolu lépp defal ko kam tamit ki nga xam ne moo jàng xasida gi allahumma yow suñu borom sari na nga doon xewal ala sayyidina ca suñu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad arraxibu kay aji xemmemu kay aji xemmem am kay aji nag moo fa moo bëgg rax ba mooy xemmeemu maanaam mbëggeel gu tar lool daal maanaam mi nga am ar raaxib la maanaam ku ñu xemmeemoon la wasalam na nga doole ak mucc yi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa saxabi ak saxabaam ya wa hablii nag ma may bi jaahi darajey di jaraje ne du saa salama maa tey sirin gu ànd ak ak jàppandal jami al maraaxibu mboolem mboolem mboolem xemmemteef yi nag ma may mboolem xemmemteef yi yow son borom ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahuma na doolu xewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad arrafiu kay aji yëkkatiku ja ka nga xam ne mooy aji ka ga sunu borom mooy ki ko yëkkati li mu ko wax ci alamasar ni ko wa rafaana laka dikrak dinaa yëkkati saw tur ba fu ma tuddee man sa borom daal a fa tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy arrafiu mooy ku yëkkatiku ki te yàlla mooy ki ko yëkkati wasala noo dole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa sahbi ak sahabaam ya wa kun na nga nekk bi jaahi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam an ya welef man mooy aji rek fi daari ni ci àdduna alaxira maanaam yow suñu borom maa ngi la ñaan nga doon koo xam ne yaa may protéger di ma aar ci àdduna ak alaxira gën jëm allahumma yow suñu borom salli na nga doole xewal a sayyidina ja sunu sang ba wa mawlana kay ñu kilifa muhammadin kay muhammad raakibil buraaxi kay aji war ji buraax ka nga xam ni mooy ki waroon ci al buraax ci guddi gi nga xam ne mooy leylatul isra wal mi'raj guddi gi nga xam ne ci lay doon jógee ci mi'raj gi mooy nee na isra gi mooy mooy jóge gi mu jógee Jérusalem mooy baytul maqdis eh, jóge gi mu jógee Màkka ko mooy baytul xaram dem baytul maqdis loolu ñu tuddee al isra bu ne mi'raaj gi nag mooy jóge gi mu jógee baytul maqdis dem ci suñu borom subhanahu wa taala te nee na ba mu fay jógee maanaam alburaax la waroon nga xam ne nee nañu waruwaay la woo xam ni fu batam yàggi jëmmam mën na faa yàggi moom la sëriñ bi di wax ni sural amini maal amini fawqal amini lil asfiyaa yi mu ne surra reñaan na al aminu ku ñu wóolu ko mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam maal amini ànd ak ku ñu wóolu ko muy Seydina Jibril waaye fawqal amini ca kaw ku ñu wóolu ko mu seydina alburaax nga xam ne ñoom ñett ñëpp keroog al aminu la leen si jubaa tudde al aminu gu njëkk gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gi mooy seydina jibril mi àndoon ak moom al aminu gu ñetteel gi nag mooy seydina alburaax mi nga xam ne waxoon nañ ni moom moo maanaam ci kawam la yeneen bi alayhi salaatu wasalaam yéeg ba fa soob suñu borom ci moom wasalam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wasaabi ak saabaam ya wa tahhir nii nag ma laabal nag nag ma laabal nag ma setal wicc bi jaahi ci daraja ne di saa sallam min kulli razila ñeel bépp ñaawteef ñeel bépp jikko joo xam ne jikko yi jikko yi jikko yi wetaxee ji la na nga dox sama diggante ak loolu nag ma nag ma laabal daal ci jikko yi ñaaw yi ak ci jikko yoo xam ne lépp lu xeetoo ak caay-caay yu deme noon daal wa min kulli nifaaxin ak lépp lu soqikoo ci ak naafiq mooy naafiq nag mooy ki nëbbu ak kéefër ci xolam ak bañ lislaam lool ànd ak nag di feeñal lislaam ca kaw ga allahuma yow sunu borom salli na nga doolu xéwal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad raakibil baayri kay aji war ja gëléem daana war gëléem mu yeneen du caa salaam ni mu daan war a ci kaw alburaaq daana war gëléem ba muy gàddaayee màkka di dem Medina Munawara ci baayiram googee la yëgoon muy naaqa naaqa mooy baayir rek mooy gëléem wa sallam na nga doole ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa saabi ak sahabaam ya wa xalli nii nang ma takkal nag nang ma takkal bi jaahi daraje leen du saa salama fadaa ilihi ca ngëneel lam ya maanaam nang ma takkal yow sunu borom nanga ma takkal ca ngëneel li yeneen di bi alayhi salaatu salaam yaa xadiru yow aji kàttanu ji yow aji kàttanu ji ki nga xam képp ku am kàttan yaa ko kàttanu yow borom mu ne ko allahuma yow sunu borom salli na nga doole si xéewal ak mucc ala sayyidina te sunu sang ba wa moolana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad raakibil jamali kay aji yéeg jee gëléem maanaam daana wër ci gëléem itam wa ala alihi ak ñoñam ya wa saabi ak saabaam ya wa kammil lii nang ma mottalil nag nang ma mottalil bijaahi ci daraja yeneen na alayhi salaam an niyatu sama mboolem yéene yëpp wal amalu ak mboolem mébét yi wërsëgale ma doon koo xam ni moom damay mottali sama mboolem luy yéene ak mboolem luy ay mébét allahuma yow sunu borom salli na a jole xewal wa sallim ak mucc ala sayyidina a sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad raakibin naaqa kay aji war ji naaqam nga tudd na fi baatu baayir tudd na fi baatu aljamalu tudd na fi baatu annaaqa maanaam bu dee baayir mënees na koo firee maanaam bu dee baahir mënees na ko firee mooy lépp lu ñu war jamal mooy gëléem naaqa nag bu ko waxee mooy moom ga ga nga xamante ni moo tuddoon ak naaqa mooy mooy gëléem gu góor naaqa mooy gëléem gu góor jamal nag bu ñu ko waxee mooy gëléem gu jigéen hmm. wa ala alihi ak ñoñom ya wa saabi ak saxaabaam ya wa jaal ni nag ma def nag bi jaahihi ci dara yeneen di bi sallallahu alayhi wa bi fi'li kulli ma amartani ci jëfe mboolem loo xam ne digal na ma ko za taaxa may boromu kartanu maanaam ma doon ko am euh, kartan ngir mën a jëfe ndigal loolee allahumma yow suñu borom salli na nga dool salli na nga a xéewal wa sallam ak mucc ala sayyidina ta suñu sang baba moo la naa kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad raakibin najib kay aji warja euh, najib najib mooy euh, lépp lu nangu maam lépp loo xam ne rek warwaay wu nangu lo warwaay wu nangoo warloo woon la wa ala alihi ak ñoñam wa saabi ak saabaam ya waaye waxfir lii nag ma jéggal nag bi jaahihi ci daraji ne dub saa salama wa kun lii nanga ma nekkal nag na nga nekk nanga ma nekkal wala liyan di ab di koo xam da ngay méngoo samay mbir waaye wax Habib doon koo xam ne sama soppe ngay doon yow sama borom kon loolu mooy maanaam salaatu yi nga xamante ne Serigne Gueye dugal na ko bu ko defee dañuy taxawal foofu rek lu ci nekk ci ay njumte ñu ngi koy jégul lu ci mat ñu sant ko suñu borom subhanahu wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu الزاجر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهي قدوة في الباطن والظاهر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزاهر وسلم عليه وعلى آله لي وسادي واجعلني بجاهي معدودا من الأكابر